Salut les amis de eSport TV, merci encore au gars de la confiance renouvelée, merci de du like, merci de des abonnés, merci également au gars de baisser les commentaires. Un plaisir renouvelé, à hein. chaque fois gars de partager des informations, inbox sénégalais, fait fouler maintenir 14 régions du Sénégal, Roukhroukhadi, Gorgokhadi, il est déjà fait hein. là, nous sommes également à l'hôpital de sécurité du février, nous sommes brom fait de Saint-Bob, nous sommes nous sommes cassés, nous sommes aussi erreur judiciaire, nous sommes fait mouler, nous sommes brom gagner l'info, dès lors nous sommes diabot, nous sommes nous sommes brom khalil, nous sommes fait aussi gars de yéhénou, on avance ensemble dans la magie de eSport TV l'actualité en on continue actualité ñu fassene waxtane waxtaanee ki mooy donc Mamadou Lamine Camara bi nga xam mom nak ci Maroc wane na bopam ci final coupe du trône wax également ci génération foot ak trophée bi mu jël ak également ki nga moy donc euh, Vlahovic bi waaj dem du côté du Paris Saint-Germain en tout cas loolu lañ ci day leeral la boobu na gars euh, histoire football joueur yi ñoo gën cher Neymar mo gëna cher 222 millions la ko Paris jënde woon ci Mbappé Coutinho Dembélé Félix Rice euh, Fernandes Griezmann Grealish Cristiano Ronaldo ñoom njëg yaangi non noonu total moo def onzième position Lukaku

ki nga xam également moy donc Pierre-Emerick Aubameyang ñing koy gëna tuddu di du côté du euh, de l'Olympique de Marseille nga Marseille fini ni nii amatuñu ben nouvelle presque pour ki nga xam Alexis Sanchez motax nak ñom sen euh, option bi A bi moy daal di recruter ki di donc Aubameyang pendant ce temps nag Tadic xam ngeen waa ji non Ajax bu ñom Frenkie de Jong ñom euh, De Ligt et tout man waji ji ku ma waxoon ne du dem ci club bu mag moo ko fi ci Turquie lay jëm mi ngi ah. donc Nico également la pépite donc du côté du FC Barcelone mom dal mi ngi mel ne daal mi ngi gën FC Porto Porto dal fi ni moy insister pour euh, recruter wala bok ñu allen avec option qui nga xam donc Nico la pépite donc du FC Barcelone Balogun nak mom fi ni waa Inter de Milan daal dañ see teg moom gët ak Milan AC Inter moom kii nga xam mooy Inzaghi mu ñëw par rapport ak âge par rapport ak potentiel waxtaan gi mi ngi gën di am di gën di diggante moom ak Paris Saint-Germain moom wax a proposé li ñu koy waaj a jëndee nag dina ñu ngi naan boo moytu mën naa egg ba 90 millions moom nag nga xam ne tudd nañ ko ci Chelsea waaye bayan nañ ci chelsea mom lu concret mu fa am euh, bayan également bolé wona ko ci seni plan yi way fini bayan daf mel dal ari ken dal jël def ko plan a paris saint germain nak nekko na également ci ki nga xamne moy ki nak di colomoni mais nak eintracht frankfurt ñom dañ ñom colomoni dal ren buñ ko jaay déwén dal mën nañ ko jaay wala bok buñ ko jaay ren ku génnewul lu ëpp 100 millions duñ la ko jaay moo Paris Saint-Germain delu ginnaw félicitations à Génération Foot Génération Foot na gaay ñom bi moy sen 3e trophée hein championnat mais également dafa extraordinaire image équipe bi presque ñi fi nekk ñi yépp dañuy dem. Hein. donc ce qui veut dire que génération foot am na ñoo xam dem nañu ba paré am na ñoo xam dañuy waaj dem équipe bi ngeen gis ni parce que dootoo gis kenn déwoon macha allah mais ñom liñ nane cerise sur le gâteau ah donc ñom dañoo gaay ñom yi ñoom pertuñ diis pertuñ les teg dañoo am le beurre et l'argent du beurre dañoo gagné championnat après jours jour yëpp macha allah gagné ay trophée continental avec le Sénégal mais également war a dem ñu dox félicitations félicitations également à mon grand Talla hein. un grand très humble sama waay sama lepp la mais aussi ki nga xamné nak moy qui donc ki di Mamadou Lamine Camara le joueur de RS Berkane international sénégalais U20 gis ngeen tey ñoom ñoo gagné coupe du trône RS Berkane moo doon ñi nga xam ne nag mooy donc ñii di

Baba Show jaa ngeen